wa axawaatuha inna ak i mbokkam kon inna lañu def muy ndey bunt bi dañu ni wali kulli ummin xusuusiya bokk na ci xusuusiyaati inna bi gën siiw mooy moom dong xabaram moom moo ci yelloo ñu di ca def laam ni ki inna rabbaka la yaalamu su dee mu daare wala bu dee lisim inna zaydan la qaaimun wala bu dee jumla inna haada la huwa alxasasul xaq dana wax ca kanam ne dana ànd ak damiru fasl ni ki loolu inna haada la huwa bu dee damiru fasl nag dootu doon mubtada du am du am barabu kiit kon damiru fasal la rek huwa ji maanaa kon xasasu inna haada kon bu boobaa moom dafa bu fekkee ci damiru fasal la dugg kon ndax xasasu mooy xabaru inna waaye nag damiru fasal bi ñu boole ca laam ala kulli xaalin li mulxani wa laamu taxtasu bi mamulaatiha li yastabina fadluha fi datiha kon mu ñu def ko muy ndey bunt ndax xusuusiyaam li inna ñeel na inna ak anna ñu waroon ko caa ataf ak xarafu ataf ni ki waaw ak layta naka noonu xaraf la waroon àndal lor way tax mënul indi xaraf yi yëpp xarafi ataf yi ak layta ak laakinna ak laalla ak ka anna yooyu ñeel na leen ak sumaali kaanu safaanu la ñeeloon kaana min amalin ci jëf moom mi daan rafaa lisim nasab xabar ñoom dañuy nasab lisim rafaa xabar kaana nag fi'l la moo tax moom marfoo am mën na ko dawal ni ki fi'l di dawale faayil doora indi mafoon mu dawal lisimam indi xabar kon naka li passé ci bunt bi loolu sax moo ca doon cosaan nag waaye inna nag moom ba mu rafaa nasab ngir niru gu mu niru feel ndax inna bi maanaa wakkidu bi mu nasabee lisim rafaa xabar kooka rafaa ak nasab su ko xaraf dee def niru feel la ko ko may du dëgg inna niroo naag wakkidu mu rafaa xabar gannaaw bu mu nasabee lisim waaye nag duñu ko rafaal maamool bu njëkk bi di nasab bu ñaareel ba ndaxte dañu ni ku ñuy taas ci barkeb waay la ñu lay taase ci barkeem dootoo ko mën jekku na mu ko jekkoo woon looy maanaam ñu naan al mulxaqu doon al mulxaqi bi inna bu fekkee dañu ko yéegal ci feel ngir niru ko waaye it jëfu feel ji nga xam ne bu ko neexee dawal ma fool mbaa mu dawal faayit inna moom mansuubam rek la mën a dawal nag mu jëmar foo ba di xabar dégg nga layta bi maanaa atamanna lakinna bi maanaa astadrik laala bi maanaa ataraja ka anna bi maanaa ushabbihu fi xaraf yi kon dañoo niru fiil ci maanaa moo tax ñu am barkeb kat mën a def lu jomb araf te mooy di rafaa ka nasab ndax jëfu arab kat xafat mbaa jasam la aada woo la cosaanoo xafat ak jasam bu lu ci xaraf def kenn du ni lu tax maratu bi Zaydin kenn du ni waaw ku gis baabu mas a gis baabuy jar lisim cosaan la ca in lam dégg nga in tadrib adrib kenn du ni lu tax indi jasam ku ko mas a gis yooyu mooy jëfam waaye nasab ak rafa su ko xaraf defee niru bu mu niru fin la tax mu mu mos ko de te kon mu jomb ñeel na leen safaanu kaan su ko defee nag comme mulxaq day manqué mulxaq bi fa amila amalaha mankuusan mu daal di jëf-jëf ja feel di def waaye nag dañ koy safaane de xabar ja lu ñu nasab lay jiitu lu ñu rafaa la mujj wuteeg feel bu ko neexee dawal faayilam cosaan la sax mooy faayil ja jëkk a ñëw mafool ba mujj la ñeeloon kaana ci amal safaanam ni misaalam inna zaydan aalimun inna nasab zaydan mooy lisimam aalimun mu rafaa ko sayda ko xam la ni bi anni naka man kuf un nawle laa walakin ibnahu waaye doomam nag zoo dixnin boroomuk coxar la xiqd dixnul xiqd maanaam nëbbu ak noone denc ko wala mer denc ko di ne ko kaasi loolu mooy dixn mooy xiqd léegi anna misaale na ko bi anni kuf un yaa gi mooy nasaba maanaam lisimam nekk barabu nasab kuf undi xabar walakin ibnahu ibna mooy lisim laakin nañu nasab ko zoo mooy xabaram rafaaye ko wax waraa i sàmmoonteel ak za tartib tartib bii bala misaale kat waaw lisim ji di dawlu faw xabar ji di mujj kat ah ndax li ñu wax rek nag moom du mën a am tasaruf ci maamulaatam di jiital ak a mujjal lu dul su fekkee dafa nekk tey xabar ja day nekk jaar ak ma juróom mbaa baraf yooyu liñ ci daan wax ñoom suñu nekkee maamool am nañu sañ-sañu dugg foo xam ne beneen maamool bu dul ñoom xaju fa moo tax wolof yi mag ñi daan di wax ñooy jël waru naaw ah waraa i sàmmoonteel ak zet tartiba tartib bi toujours lisim dina ses ci inna xabar ja mujj illaa filladi lu dul ci tarkib boo xam ni xabar ja dafa nekk varf mbaa jaar ak majruur niki layta fiha xayral badi yàlloonte nekk ca kër ga xayral badi yi ku dul ku ñaaw lamiñ badi yu mooy ku ñaaw lamiñ bazaatu min al bazaati layta fiha xayra xayra mooy lisim ja waaye fiha gis nga ko moo dox diggante layta ak lisima wala jaar ak majruur wala zaraf la niki layta huna xayral badi boo ne layta fiha xayra albadi wala layta huna kon fiha ak huna ñooy xabar bi dégg nga fi ñu asof fi ñu fi ñu aju maanaam barabu rafaa la nekk wa hamza in naftax li saddi masdari masaddaha wa fi siwa zaka ksiri an jox na la benn takk nag boo xam ne hamza inna mooy hamza an na ci benn maanaa képp képp képp benn maanaa la ñu bokk mooy tawkiid moo tax ajarum bu maanaa inna wa an li tawkiid waaw kasra gi ak fataa gi nag li koy waral bu fekkee ni maamul la annaag innaag la mu dugg amila dal ci kawam léegi ñu fataa ko suyee boo nag barabu rafaa la ne dañuy fataa hamza ga wala barabu nasab la ne barabu rafaa la ne yujibu ni annaka qaa'imun yujibu ni anna zaydan faadilu wala mooy yujibu nii qiyaamu zaydin kon xarfu masdar yi la anna di doon dañu koy taawil masdar masdar moomu mën na nekk barabu rafa ni ki yujibu nii annaka fa maanaam yujibuka fadlu yujibu nii fadlu wala barabu nasab alimtu annaka fadilun ay alimtu fadlak wala barabu jasab jasab nasab xafad laa wax dégg nga ajibtu min annaka fadilun ay min fadl fa inna bi xubbiha fala talxini fiha bu ma ca yedd laxaa yalxa mooy yedd na fala talx dégg nga fala talxani bu may fala talxani bu ma yedd fiha ci moom fa inna bi xubbiha ndax aji waxal fa inna bi xubbiha asaaba axaaka musa fa inna axaaka waaye comme bi xubbi fa inna axaaka musaabul qalbi bi xubbiha léegi kon ba tey lu mel na lu démb laa di maamoolu xabar ja dugg na te maamoolu xabar fu mu dugg dañu ne ah bu wërtuwul kon xabar ja waroon na fa mën dugg lu dëgg maanaam fu maamoolu amil dugg dañ naan laa yaqaawu l maamoolu illaa xaysu illaa xaysu yaqaawul amil léegi musaabul qalbi mooy xabar bi xubbihaa ca la aju woon kon bi xubbihaa doonu li mooy xabar waaye nag mooy maamoolu xabar tey gis nga dikk na dugg fi in na dugg kon mel na na loolu dàqonte naag tartib bi nu waxoon dégg nga jëmmul balaa bili ku bare ay xalaat la jëmmul balaa bili bal balatu balaa bilul qalbi mooy ay xalaat dégg nga waraa waftax fataal hamsag inna li saddi masdarin ngir ubbu masdar mën a ubba masaddaha place am su fekkee inna ak lisim ma xabaram dañu koy war a masdar mën na leen remplacer kon nañu fataa hamsa ga ndax dañ koy taawil masdar moomu bu yeboo barabu rafaa la ni ki yujibu nii annaka fadilun loolu maanaa fadlu ko barabu faayil la ne wala alimtu annaka fadilun ka xam ne barabu nasab la ne ay alimtu fadlak wala barabu xabar xabar ajibtu min annaka fadilun ay min fadlika dégg nga àll ku yooyu masdar remplacé na waksir fatal kasral hamsa isra inna fii siwa zaka ci lu dul lool soo xamee ne masdar mënu ko remplacé loolu nag mu nekk ijmal boo xam ne tafsila ma ngi dikk kon fi ko fi ko fi dul foofu mooy bu dee ma mahalul ibtida wala mu nekk ci njëlbéenu si la wala yow taksir kasraal kon fil ibtidaayi soo tëbee tëb ni inna zaydan qaayimun kenn du tëb tëb naan anna zaydan qaayimun ndax masdar mun ko remplacer ah su fekkoon ni da nga ni anna zaydan qaayimun kese muy fadlu ko nga daal di ni fadlu ko maanaam fadlu zaydin fadlu zaydin ñu defee ni sottal nga ñu ne la loolu du wax matul kalaam benn mufrad rek fadlu ko mbaa nga ni fadlu zaydin loolu dana mat kalaam matu ko kooku kon duñ ko nañ ko kasra su ko defee muy jumla sarix inna zaydan fadilu mel ni yow munoon zaydun fadilun rek la nga feddali ko dëgëral ko inna zaydan fadilun ma ngi mat kalaam ba tey waaye soo noon anna zaydan fadilun maanaam fadalu zaydin rek lay doon kon libtidaa kenn du ko ci kasra wa fi bat i si law la njël beenu si la ba nga xamee ni sum si la bu jumla rek lay doon mbaa si bu jumla moo tax kon comme njël beenu jumla ku ci kon it ci libti maanaam libtidaa la ni dégg du dëgg ci si la jaa alladi innahu fadilun ci njëlbeenu sila sila la bari wa fi wa xaytu inna ak fépp foofoo xamee ni inna mukmilatun luy mottali la li yaminin jumlay jawaabu xasam la nee na kon itam nañu ko kasra su fekkee laam dikk ca mujj ga niki wal asri inna linsaana la fi xusrin su ca laam dikkul woon te kenn tuddul feelu xasam beet fokk ñu kasra ko du dëgg ndax foofu masdar mënu ko remplacer du dëgg xamim wal kitaabil mubiini inna anzalnaahu feelu xasam ba kenn tudd ko te laam dikkul ci jawaabam ah mu des benn barab boo xam nan ko bàyyi ba dem ci ñaari anam yu dagan yi su fekkoon ni nag laam dikkul te tudd nañu feelu xasam ba waaw kooku nag danañu ko tudd ci ni bu la neexee fataa ko ndax masdar mën na ko remplacer bu la neexee kasra ko ndax it mu nekk jumla sariya foo xam ne jumla mën na fa ne masdar mën na fa ne kooku inna bu fa dikkee dañ dana dagana fata dagana kasra fata gi toujours remplante ak masdar moo tax dee si ko def foo xamee ni masdar mën na fa dugg jumla mën fa dugg ah bu boobaa bu la neexee fata bu la neexee kasra ay seen shawahid dana dikk du dëgg kooku ak àggagunu ci wa xaytu inna mukmilatun li yaminin maa laami aw aw lam yuzkar fi'lul xasam ci yooyu yaar bu àndeeg laam wal asri inna linsaana la fi xusrin laam nga ca jaw a xaawaay su àndul ak laam su àndul ak laam te tudduñu feelu xasam niki wal kitaabil mubiin inna anzalna aw xukkiyat wala ñu nettalee ko moom innaag la mu dugg bil qawli ci baatu qawlu la ñu andi niki qaala zaydun inna amran fadilun jumla inna amran fadilun mooy maxki yu qawli jooju moo nettali wax jooju foofu dañu ko fay kasra ndax foofu jumla mënu koo remplacer aw xalat maxalla xaalin wala mu wàcc ci place xaal ànd ak waaw ni ki surtout foo ziyaare si naa waaja wa inni te mbir moom wóor na ni man day zoo amalin boroom mébat laa waaw wi ci inna inna ci njël beenu maanaam place xaal la ne moom sur surtout wal xaalu inni zoo amal te mbir moom maa ngi yor maa ngi ab yaakaar ci moom koko dañu ko fay kasra ay wa kasaru min baadi fiilin ulliqa billaam danañu ko kasra ci gannaaw feel joo xam ni dañu ko gàllankoor ak laam budul woon laam nga moos dañuy fata ànd na muy maamul waaye laam nga dikk ca xabar ja nag moo tax mënatul ànd ak kasra gi niki ilam xamal ni innahoo naka zaydan kat la du tuqaa boroomu ragal yàlla e taaliq moom danañu ko tuddi moog ilga taaliq moo di ilgaul amali lafzan la mahalla bi xilaafil ilga mooy ibtaalul amali lafzan la mahallan mooy taaliq aywa nga waroon ni alimtu anna zaydan zo tuqaa waaye nag balaam nga dikkee ci lëgoo te laam gi kas rek inna la xabaru inna la jagoo moo tax kon ilam ji waratul tax ñuy fataa hamza gi ndax boo ko fataa woon rek kon amalu alima feeñ na ci lafz waaye laam gi moo gàllankoor alima ba mënatul jëf ci lafzu innahu ba ñu di ko fataal hamza waaye kon teewul mahal bi mahal bi ba tey ma palaasu nasab la ne maf'ulu alima loolu mooy gàllankoor laam gi yàq na jëfu alima ci lafzu bi ndaxte bu bu fekkoon boo ni woon ilam annahu zutuqa kon jëfu alima feeñ na ci fi nga xamee ni dañuy fataa xamsa gi te kenn waxul luy mandarga nasab kat di araf duggul ci na liraab waaye kon danañu xam ne asarul am abil bi moo waral fataa gi te loolu jëf la baada ida fujaatin zu aw qasami laalaama baadahu bi wajhayni nu mi léegi nag mu bëgg indi anam yoo xam ne bu fa inna dikkee mën nañu fataa xamsa ga mën ko kasra ndax man bastar mën na koo remplacer moo tax dagan naa fataa jumla mën na mën na ko doon moo tax buñ ko kasaraa moom ci jumla la ne bu loolu ci bu dikkee gannaaw ida al fujaiya dégg nga dégg nga wa kuntu ara zaydan kama qiila sayidan ida innahu mba ida annahu abdul qafa wala haasi wa kuntu ura nekkoon naa may jortoo baat mudaari om yara soo ko binaa oo lil majhul mu mën nekk bi maanaa zann wa kuntu nekkoon naa ura may jortu te boo newoon ara kon du firi jort dégg wa kuntu ma nekkoon nekkoon naa ura di jortu ni ura zaydan may jortoo zayd sayidan mu di sang kama xiila ni ñu waxe ida ndeke woo moom noona moom loolu la ñuy wax ida fu jaay ya mbetteel googu noona fas ndekete nangam ida nag annahu wal niki moom abdul qafa jaamu loos la wala haasimi ak i kaabab maanaam jaam boo xam ne dañu koy gàdd ci loos yeeg di ko bëkk ci kaabab te fekk ma di woon sayid loolu kenn du ko def ab sayid mu nga ni ida innahu abdul qafa su ko defee kon jumla la de aywa waa soo ko fataa nag ida annahu abdul qafa maanaam ida ubudiyatuhu mawjudatun kon bon mu am mubtada ci topp soo ko fataa dafa mel ni mubtada la ida ubudiyatu ndax anna soo ko fataa rek ñu tawil ko ay maamulam am masdar te kon mooy ubudiyatuhu mu nekk benn mubtada xabar ja nag ñu xasab ko maanaam soo fataa taqdir ida ubudiyatuhu kainun mbaa mawjudu waaw naka noonu kooko danoo dig dégg nga ba nga ne aw qasamin laalaama baadahu dégg nga mooy wa zukira fi'lul qasam waaw te fekk ñu tudd fi'lul qasam amma bu ñu tuddul fi'l ya ñàkk laam gi du tax ñaari anam daga ca waxoon nañu wal kitaabil mubiin inna anzalnaahu kenn du wax annaa ko ndax tudd ñu fi'lul qasam bi dégg nga waxul ne ahlifu bil kitaabil mubiin su fekkee ne nag tudd nañu fi al jete laam dikkul mooy arab yi ba doon wax jabaram naan ko aw taxlifi bi rabbikil aliyi inni abu zayyaaliki sabiy mbaa anni riwaaya nañu ko fata kasa aw taxlifi wala nga giñ bi rabbiki ci sa borom al ali ni anni ni ki man wala inni abu zayyaaliki sabiy maay boobu maay baayas maay bàyyi ngone soo sule da ko tarxis da yaali ki tasxiiru zaalika la ci jum ala gayri qiyaas na aw taxlifi bi rabbikil aliyi nga giñ ni inni abu zayyaaliki sabi maay bàyyi ngone soosu xëy na day tuumaal jabar ja wala anni dégg nga mooy aw qasamin laa laama baadahu wa zukira fi'lul qasam ah nde te loolu sart bu mu tudd la waaye ci la de xalaam dikku fa waaye na fekk nag ñu tudd feelu xasam ba wa illaa wajabal kasru niki wal kitaabil mubiin inna anzalna kooku nu mu ya askane nañu ko bi wajhayni fatha wal kasr maa tili fal jaza ànd ak inna ji topp ci faawu jabaab jabaab annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taaba min ba'di wa aslaha fa innahu mbaa fa annahu mu dikk ci gannaaw faawu jaab yooyu yaar yëpp dagan wa wa ah dégg nga wala fa annahu fa innahu mukramun jumla la fa annahu mukramun ay fa karamatuhu mawjudun mawjudatun wala kainatun te bii nga xam ne mooy dagana kasraak fata yattaridu dana xiyaasu faw fii naxwi xayril qawl lu mel ni maanaam fépp foo xamee ne baatu qawlu daf fa dikk inna dafa fa dikk di xabaru qawlu te innaat xabaram di qawlu te faailul qawlayni waaxid la waaw inna daf inna li si ma xabar lay am xabaram ci baatu qawlu la te moom jumlay innaat xabaru qawlu ju dawlu woon la mubtada mu dawlu woon di qawlu te ñaari qawlu yi ki leen wax kenn la loolu mooy mooy xadd bi mo moom nag xadd bi waxu ko xanaa ni ci fu mel na ndaxte misaal danañu ko doyloo walis xadd lu dëgg al misaalu yugni an il xadd soo ni woon al fi'lu ka daraba wa yadribu wadrib kon misaal mi doy na walis xadd lu dëgg naxwu xay xayrul qawli ngeen ji wax inni man ahmadu damay sant ahmadu wax la dam maa ngi sant yàlla loolu kàddu la ah bokkut ak yow mu noon adri bu damay dóor du dëgg te itam inna ak maamoo lamit xabaru qawlu la ana mubtada mi lan la xayrul qawli nga man ni ah xayru kat doonul qawlu ñun la waaw waaye mu afalu tafdil la afalu tafdil baadu maa yudaafu ilay loo ko laafal mu nekk maanaam loola xayru afalu tafdil la cosaanam mook charru asluhu axyaru wa achar axyaru wa acharu xanaa kasratul istimaal lañ ko woyofee wacc seen hamsa di wax xayrun ak charrun rek mu daal di woyof dootuñu ko ñàkk tanwin ndax woyof gi sulaasi yu bu digg ba sukkoon day woyof xayrun ak charrun cosaanam kat mooy moo gën a baax ak moo gën a bon afalu tafdil comme yow mu noon axyaru wa acharu xayrul qawli ngeen ji wax afalu tafdil loo ko laafal moom la comme xayrul qawli qawlu la charrul qawli it qawlu la kon mubtada mi qawlu la ma ngi meloon ni ba mu misaal ma woon ca mubtada muy doyloo maanaa moo xam ne dootu am qabla xaalin la yakoonu xabara atammu tabyin ya la ma ca waxoon atammu afalu tafdil kon masdar la ndax masdar la laaf bi mu laafee qawlu qawlu la laaf déedéet déedéet allahu xasbi mooy ba nga xamee ni mubtada mi mooy nafsul xabar nutqi allahu xasbi nutqi sama kàddu ba tey mën nañ ko defal ndax nutqu qawlu la nutqi sama qawlu sama kàddu mooy allahu xasbi yàlla doy na ma wax la moo tax dégg nga wa baada zaati lkasri tasxabu alxabar laa mubtidaa in naxwu inni la wasa wa tasxabu dana ànd ak alxabaru xabar za baada za dana ñëw dana ànd ak kii baada za dana ànd ak xabar wa tasxabu dana ànd ak dégg nga alxabaru xabar wa tasxabu dana ànd ak laa mubtidaa in laa mubtidaa soo ko defalee faay dana ànd ak alxabara xabar baada zaatil kasri ci gannaaw inna ji borom kasra wala mu taxtasu bi maamulatiha naxwu inni man lawa zarun ab wéeruwaay laa lawa zarun ay maljaun ku jaaxle mën a jëm si ci man wala yali zilu mu na ni danañu ma yedd fi xubbi layla ci xob sopp layla ah wa inna ni ah walakinna ni fi xubbiha la amidu awazili yalumuuna nii fi xubbi ci lugatu akaloonil baraaxiisu nde lu doon gën a fasaaxa mu bañ a indi xaraf yooyu nga xam ku ko gis defe damir la te du damir mu ne rek yaluumu nii dana ma yedd awazili sama way yedd fii xubbi lay la walakin na ni man la amidun maanaa ku modnan ku ragg la ku ngir meseer fii xubbiha walakin na nii la amidun mu ne foofu dolli nañu foofu laam ci laakin na waa waa koofa nag ñoom lu ñu gis ci seen naxu nee nañ ñoom mën nañ koo yoonal di ko waxe bu dee waa basra ñu ne loolu chaadr la laa yuqaasu ali su ko dee waa basra ñoo ne ko lam bi zaida la foofu kon moom zaida la rek doonul lu fu konte du jégee ne laam nga doon dëgëral ci xabaru inna la kon fa wujuduhu kal fa wujuduha kal adab laa mubtidaa naxwu inni la wazarun wala yali du sësëg zillaama laam gi wala yali du topp maaxat nu fiya lu ñu dàq du sësëg laam gi lil munaafaati li anna laama dégg nga li tawkiidil isbaat wan naf yu yunaafil isbaat su fekkee lu ñu dàq la du sës ci laam gi soo ne inna saydan lam yaqum weddi nga ak taxawam dana wuteeg ba nga naan inna saydan la yaquum di dëgëral saxuk taxawaay bi kon kenn du ni lalam yàqum chaise la ñu dégg ci waxu arab bu ni wa alamu anna tasliman inna tasliman wa tarkan la laa mutashabihaani wala sawaaw seetal laa mutashabihaani nga def nafyu la man fii beeg laab dikk loolu ay chawaas la yoo xam ne kenn du ko xiyaas kat wala yali du topp zillaaman laam gi maa qad nu fiyal lu ñu dàq dégg nga kon inna tasliman wa tarkan lala mutashabihaani génn na qiyaas wala min al afaali du ko topp ci fi'l ma mada wa tasarrafa luy fi'lu ma tey mutasarrif ni ki radiya yarda radiya inna saydan la radiya du ñu ko wax inna saydan la qaama kenn du ko wax du dëgg mu dellu ni lu dul su fekkee dafa ànd ak baatu qad li anna qad yuqarribu al maadiya min al xaal fa yushbihu al mudaari qad ba nga xamee ni bu àndeeg xaal maadi jegeel na la ko maanaa waxtu wu teel kon daal nay niroog mu daari ndax mu daari on la waxtoom teew su fekkee ni ñu ngi doon nekk zeyd dégg nga soo nee jaa a zeyd rek mën na it léegi mën na it bërk démb nga nga nga nga zeyd ak si léegi nga ne xadd jaa a maanaa ñëw na nag nag jooju nga ci boole te mooy xadd ji dafa tegtale ne léegi léegi léegi la xew ah nangam am na nag seetal suñu doon soo ne woon nangam am na mën naa am démb la waaye nga daal di ni ah am na nag de am na nag maanaam léegi la kon maa bi bu niroog mu daari am bu boobaa bu xat duggee laa mën na ci mën na caa ànd dégg nga inna zaydan la qad zahaba waaye la zahaba rek duñ ko wax wa qad yaliha ma a xat mën na ànd ak moom nag ànd ak xat ni ki inna za la qad sama kayana mustahwidan di aji not alal idaa ci noonu seetoo sama ba xat dikkee feelu maat la waaye mën na ànd ak laab معمول الخبر الفصل واسما حل قبله الخبر noo ngi doon wax ci laamu libtidaa googu ñuy def ci xabaru inna ni ki inna rabbaka la yaalamu inna zaydan la qaa'imu laam googu dana am yi muy àndal mën na ànd ak alwaasita la nekk ca diggante maanaam mutawassit bayna lismi wal xabar waasit boo xam ne lu mu doon maamulal xabar maamulul xabar ni ki mafoolu xabar ja te ida tawassata bayna bayna lismi wal xabar moom mafoolu xabar ni ki ngay nga ni zeydun aakilun taamaka mafoolu aakilun aakilun nag bu nekkee foofu mu ne du ànd ak laam waaye bu diggoon ci diggante bi nga ne zeydun taamaka aakilun nee na laam gi mën na ànd ak moom gani inna zaydan la taamaka aakilun laam googu daan dem ci xabaru in tasxabu dana ànd ak alwaasita lu diggee maamulal xabar luy maamulu xabar ni ki inna zaydan taamaka aakilun inna zaydan la taamaka aakilun ndax lu doon cosaan la aakilun taamak dana ànd ak fasla damiru fasl inna haada lahuwa alqasasu alxaq huwa damiru fasal diggante diggan diggante lisimu inna xabaram inna haada alqasasu alxaqu ñu tudde ko damiru fas li annahu yafsilu bayna alxabari wa sifa mooy taqlee diggante xabar ak sifa lisim ji bu dee maarifa bee di maarifa soo noon inna haada alqasas ah mu mel ni daga yow mu noon inna haada alqaa'ima zaydun nga xam ni sifas haada la waaye su fa huwa doxee nga ni inna haada lahu alqasasu kon dana ràññiku zaydun alfaadilu zaydun huwa alfaadilu huwa ji fasale na ni faadilu du naatu zaydun bu dul woon moom ñu ja laxtamala alfaadilu an yakuuna sifatan zaydun alfaadilu xaadirun kon mu mën a ne waaye soo dee zaydun huwa alfaadilu kenn dootu defe ni kon nag faqad fasala ay bayyana wa mayyasa bayna sifati wal xabar moo tax ñu ko damirul fasli dégg nga damirul faslu nag mën naa ànd ak laam gi inna zaydan la huwa alqaa'imu inna haada la huwa alqasasu alxaq ak leneen lu laam gi àndal wasman lisimu inna joo xam ne xàll dikk na alxabaru qablahu inna fii